ci biti man nit bo nekkee ci sa mbon bali dal dal xolal ma xol sa botu yërëm tolu yi deggal li wax man bima la ci sama xol yag na dee ci sama xol to ci lima ju eh jëlee nga and ak mom ci bi xaj yow. euh aduna àdduna ni nii. ya may wax aduna xam nga ma lay xamal nga japp ki nga andat ak mom ci xaj doyal na ci ki ganaa ma góor geeg ngóor si man mako indi té li tax ma indi ko amna na lu ko waral euh ko waral moy da ngay na bokk jangoro yeen ñaar xamna la yow gula xol sa xonkay bi xamne yow yaa ngi ci sida ji sori nga ci sida yow li la bëgg wax nak mu gudd ak mu gatt moy bu may yëngal bu sama ram tangé mëno ma may wax nga japp ci loxo bi sida da fay dem ba ci jappante bi da ci duggante man xol bi ma leen xol sax worul ci man bu dee sida woo bàyyi. góor gi dafa am lu ma la bëggoon a wax. muy lan. gis nga góor gi man yàlla dogal na bokkuma ci ñi am jàngoro bi. kon bàyyi. te itam bokkuma ci ñi nga xam ni dañuy am jàngoro ji ba pare téye ko def ko arme di ci venger wu di ko wàll ñu leen neex. lool laay bañ nag moo tax ma bëgg mu abal ma ca xaj man munumaa dëkk ak sida man gis nga loxoom bi ma téye wàlluma sida ñu bokk kaas di naan duma ma wàll sida ñu bokk yére bu ñuy sol du ma wàll ñu bokk bool di lekk duma ma wàll sida te gis nga góor gi kii li ko dal tey ba mu bëggoon a def li mu war a def su ko defoon ba tey kenn waxatu ko. lu dama koo fekk muy waaj a xaru mbaadu di yaa ko téye tooñ nga ma ba ci kanamu yàlla mënoon nga koo ba mu xaru Euh, mm-hmm, xam nga rek. <laughs> ba mu deewee yàgg na ki doon wuy sa manday ay waay booy yaa waroon ba kii mu gaañu. gis nga góor gi. kii dama koo toll nii waroon cee business am ci million nga dem seet ñoo xam ñu sida nga jox leen ko sida ñëw taxaw ni ma kaam nii naa la trop ba ca kanamu yàlla. gis nga góor gi góor gi gis nga tey kii li ko dal. am nga ci responsabilité bu mat seuk dama toy dama bëgg nga may ma rek mo wax ak yow. dama rek. am nga ci responsabilité té d'après li ma wax ak mom mais gor gi ki alal ji mu yoron dila ko jox dila ko ngir yow nga mais tay fam ko doon jëlé ak nam ko doon amé papa. Ah dom. def. Uh, billet uh, dinaa la wax benn mbir jooyuma doom bu góor ndax fépp fu doom di taxawu baayam yaa ngi ma fay taxawu ñi jooy jooy doom man bokkuma ci ñooñu ma lay wax ne nag lii nga ma jox xeebuma ko xooluma noo ko ame ak foo koy amee. du ñàkk nag ay nit dinañu taxaw di la commentaire bu ci lijjanti kenn waaye li ma la mën a wax mooy foo nekk doo fa nekk sa moroom di la raw bis bu ne yaa nga ca kanam góor góorul bu baax. ah papa man de lii su ma ko defee damaa war rek ma def ko comme yaay sama kilifa nag. Mm-hmm. nga ma ko. ma ne xaaral ma àndil la ko rek xam naa danga koy soxla moom. dëgg la dëgg la da baax fàtte ma man mii sa baay ndax bari na doom yoo xam ne fàtte nañ seeni baay. taxaw ma nga taxaw nga ma fi nga ma war a taxawoo waaye li ma lay wax di la foo wëlbati ko waxal amin xam ne jigéen du la yërëm waxatuma laa góor góorgóorlu bu baax dégg nga. kontaan naa ci yow. te xam lan moo ci gën a doy waar ma damaa jàpp ne nit su gor jotee rek dafa war a gore ndax li tax maanaam ba mu la nekkalee ci ker gi tey bu naaj wi ñëwee war nga ko faa nekkal.

faa na bàyyi taxawaalum te toog ci biir kër gi. mais baax na. man dama naan alhamdulilah ba nga ñibbisee. Mhm. ndax gis nga fa raag bu metti laa nekke woon ak moom chaque jour duma ko may jàmm duma ko may salaam rawatina nag bi mu nee xaw ma waayam jooju mooy loolu di fi ñëw borom barab boobu noonu xaw ma lan. mooy borom barab bi rek. kenn ah, xamul man la kenn xamul loolu kenn xamul lu mhm. loolu noonu mhm. mais daa am liggéey. faanaga nga ca engagé wu engagement boo xamante ne ni si pikiiru bii façon pikiiru cukkal carrément pour moom xam nga la moo ci des. Mhm. nañ ko takk mu dem sëyi. te xamul lu xew ban genre moom yàlla naa ko xam. attends moom il va pas dire que ne dañ dañ ko embauché. waaye yow xanaa kii kay ko ngay embauché ku ne xanaa danga koy jox ñetti fan mu mos. <laughs>

kenn waru leen jël di leen génn ñuy nekk ci mbedd mi dañ leen war a jàppale dañ leen war a épauler téye leen bu baax ci seen biir njaboot yi xam ne yéen rek lañ dese ndax soo fàttalikoo démb ba ngay lekk alal ji neexoon na lool neexoon na lool nga yaataa yumbe nga baal ma nag ci terme yi waaye tey su ko lii dalee lan mooy sa wareef sa wareef mooy jël sa doom sang ba mu set teg sa wet dalal xelam ndax espérance de vie am yokk waaye doo ko jël sànni ci àll bi ñi mel nii nag nguur gi wut na ay matuwaay te matuwaay yooyu ñu wut mooy boo ko génnee am na ay centres yu ñu leen di jël di leen fa former bu ñu amul métier ñu wutal leen ay métier suñu jàngul ñu eggale seen jàng di leen faj te faj mi kat léegi daanaka kenn doj ci fay dara man li ma jaaxal. ba jaaxal mooy décision bi nga ci war a jël sa doom nag mu ngi nii soo ko dee téye si kër gi nga téye ko soo ko dee génne nag nga xam man ma jël sama ay responsabilité waaw maa ngi dem kër Aïcha yow moom daal eh, kër Aïcha rek Aïcha du ñëw mukk moom maa ngi fi ak sama ëmb di bajaan mii à propos sax dama la xawoon parce que sànq maa ngi génn dégluwuma la nag d'accord parce que dama génn rek mu tombé may dégg Ali di la wax ci affaire yu joobam bi ba ni la dafa bëgg déménage bi ma dégg la yow tamit nga ne da nga refusé donc man su ma sañoon nga may Ali loolu parce que ci droit am la aussi en plus de ça devoir am la parce que yow yaa ko yar pour man boo yoree aale ba heure bii nii mu ñëw bëgg teg la dans de meilleures ngay bañ nit ñi mën nañ ko gisee neneen que yow du lii nga ko bëggaloon genre yooyu noonu. Euh, loolu sa sac la aale yóbbu la feneen. dada dada man maa révisé aali. Euh, aali bande man maa ko révisé man décision wu aali man sama yoon am na droit jël décision am ne day génn mais maa ko révisé samay droit aali ñëw na ma nee na ma dafa bëgg a déménager dafa bëgg mu ma ne ah, jël ci entreprise bu may liggéeyee bëgg su ma fayoo ko première salaire no dem man aali ba léegi waxuma entreprise bu muy liggéey aali kan moo la wax jaayul dorog ah ñu génn fii benn jour génn dem luye ji toog buum yi fëgg ñu benn guddi ñun ñëpp mën na te nu génnoon aali toroxal nu loolu day dara ci at. sama monas, وموقف يوم صدق ستة حساب lu xew kon yow ni nga taxaw nga laaj ma lan malam mau waaw wah, am lu ya ya ya, kan? yow kon monas, bing nga may wax dangay dem weekend ak sa copain sama papa nga doon weekend ça devient sérieux nag waaye fa yow engagé nga tam fitte fan nga teg ni mag sa papa ñoo àndoon weekend fi ma ko teg yow gis nga loolu moom mësuma ko sax dute que ni sa xel dina xalaat loolu yow mbaa du la keroog li moo tax ngay wax hmm. gis nga sa pap ci arrêt bi lañ tase man ak moom may xaar taxi mu gis ma yóbbaale ma loolu lan moo ci nekk ba ngay xalaat sa xalaat bu ñaaw bi. Ali. nag arrête. ah. yow Ali yow yaa xam nga lu mu capable ak lu mu ah, looloo tax ma doxalee noonu yow xam nga ne nit ku diñ la man man moom ñoo yarandoo te ba ma ba ma ko xamee ba léegi nii mosuma gis Ali nekk ci ñàkk fayda. xeex sax mosuma dégg Ali ñu ne ñu ko koy àtte donc yow xam nga Ali bu baax quand même donc man daal loolu laa doon la ñaan nga réfléchir ci nga dem ci déménage parce que loolu tamit sa sag la de toute façon yow yaa yar Ali. Euh, wuy ma euh, Dada gis nga teg tekkatu dil foo ko fekk du xeex du xuloo danaan tekk rek yow tekk goog nga xamee Ali man nag xam naa bandi Ali dégg nga comme yow loolu moo ci sa xalaat man daal xoola bàyyi leen ma rek ma travailler sama xel sama xel mi daal laa bëgg nu bàyyi ko rek mu travailler lu ma sama xol jox ak sama xel ma def ko su dee damay dem ma dem su dee topp ma aali ngeen bàyyi ma toog fii toog ak ba Badiane nekk sama jàmm ak sama salaam parce que kër gi nag dama koo miin luyee ba mu ko commencé fay léegi toll na ci vingt ans dégg nga man kër gii ci boppam borom dafa ma ko waroon lege à part am naa ko ci kër gi te xamu leen ko. tonton miin moom ci xel na fee man nañ fa def nga dem fa deux jour nga daal di adopté wu mu gënal la sax fii nga jóge donc loolu moom du excuse pour man nga nga xoolaat daal sa xel vraiment nga dem ànd ak aali moom moo gën. dada man daal dinaa xalaat mën naa dem bañ a adapté wu mën naa dem bañ a adapté tey waxuma loolu sax yow foo toll ak gis nga yow mën nga lëre na ñun moom saf ma man mënuma lëre. yow kon dafa mel ni ka foo defar. parce que xam naa sa fit xam naa sa capable mais nag bu fekkee sama papa moom ngay génnal yow tegoo ko fenn amoo ngor gorewoo yow fi ma jaar ak yow yëpp sa bimono bi mën nga ko tek ci sa sam papa ah ci alalam bi nga ko tek perte nga gis nga li mënoon na ko wax sama yaay de mais mom mag la man ma koy gérer parce que man ma tolo ak yow. et puis xam nga la la dafa doy xam nga la la nak fa yow yaa may bëgg a de waaye ëppaloo. doo ñëw ba fi di jay jaay la wax ju da ngay wax ak man correctement mënoo ko ci biti ici chez moi fi sama kër. sa kër nga wax di. waaw yow amo kër. parce que man vraiment. tamit affaire bi arrangé tu hmm? ma. yow yama yar xam nga ni man nekuma ci dara yu ñak fayda deug la dama accepté woon affaire bi pour yow say propre désir mais instant bi ni man euh, xaw ma daal man man sama bopp xàmmeetuma sama bop tu vois donc duma duma sacrifier mbëggeelu ali ak fa ci yow lo xamanteni yow say bëgg-bëgg la man dal su sañon ma bàyyi nonu mu sedd.

bàyyi aali mooy takk nga sa valise wékkoo sab saab rong ma def nii c'est fini jeex na. kon na man de façon man loolu pare naa ci déménagement bi dégg nga. waaw waaw waaw déménagement bi moom dinaa ci xalaat yow it euh, nga xalaat ci yow génn gi nga war a génn kër yow fii ba ba nga yegg kër ah, faa dee ci xalaat rek dégg nga. ko mu ñor xomb nag te bala bala ngaa ñëw ci kër gi nag ma wax damay dem wala damay rester. espèce de menteur i yow auberge ak hôtel ñew sa kër dang ko faaté ci nga dëkk di négu hôtel yépp xam nga nu mel xam la li nu mel xam tra yi nii laal pourquoi pas ak sa papa rek <laughs> tout est possible bobo nga perte na sam papa gol la yow nag boo dee xale bu ndaw nga top ben pa bu té bala sax nga top ci lagar lagar yi perte sa valeur perte ñak ci kala yow manka da nga perte ndax yow hôtel yi bargis néeg bu né man sa papa ñu nga ko kon loolu neex na bobo nga perte sa papa ma gën a perte lu mi perte yow ñak na classe amoo valeur dignité sama jam man ñak fay la laaj ko pétas bi toog. pétas yow yaa ma gën a nguru pétas yow manka neexul ba neexul waaye Fall mu lox dëgg la de waroon ngaa toxaanal teg ñëpp ba mu sa papay Fall ak fi ngeen jaar fépp. Eh, xamal la laa leen bëgg a xamal gis nga cuuj day xam lekkam yamal ci cox bi balaa ngaa fot ci biti. yàgg naa xam sama lekk. yow kay dégage waaye yow ngay jaay seytaane noonu.